ay ca murit leerug Touba. ndigal ak kilifte fa sëriñ Sidi Mbacke xalif sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke waa Touba beleel jëf jël ak képp koo xam ne am na xemmemteef ak mébét ci ànd ak waa Touba beleel jëf jël liggéeyal Touba beleel ak lépp lu ci aju talal nag loxo jullit yi ak taalibe yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi wala rëy yi ak am ji jàmm yi jaayante waat ngir fas yéene liggéey Touba beleel noo ngi ñaan nag am ci ak jàppandal làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barki sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke Touba beleel jëf jël beleel da koo soxal moo tax mu jaayante liggéey te am ndigal Touba beleel jëf jël la bëri ya làq ndam xaritam mo yóbbalub sadiq yalla ka ay ngërëm Touba Belel def jël ku Seex Abdul Ahad doon jëwriñam mu war di sadiq ko murit tay ñu ngi sax bu baax a baax ci képp koo xam ne mo fi nek mu jekkal togaayam te baye xel waxtaan wi ba nga xam ne bu demee dana mëna a yóbbaale lépp loo xam ne bu leen ko wax ñi ngi sant bu baax a baax nag di fasiyene jox ki nga xam ni mooy Serigne Mouhamadou Lamine Touré mom moy ki nga xam ni mo wara a tijji waxtaan bi tambali waxtaan bi bu ko defee ñu doora a ci yeneen bokk salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoo fi teew bokk ci membre section Touba Belel jëpp yëpp rawatina nag waa section Touba Belel nga xam ni Serigne Bara Touré moo ko ak mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoom la bokk liggéey muy section yi ak sous section yi ak li ci aju yëpp bokk na ci ñooñu suñu mbokk yi congeen yi suñu mbokk yi sanc yi suñu mbokk yi pël yi ak suñu mbokk yi yi nga xamante ni nekk fii yëpp ku ci nekk bu sëñ Bara ñëwee dina lim ka nekk ak liggéey bi na fa demee. waaye ñun li ñu bëgg a njëkk a leeral rek laataa ñuy solo ci waxtaan wi mooy dëgg-dëgg yi Touba Jël ak lan moo ko sabab ak Touba Belel Jël mooy lan Touba Belel Jël. kuréel la boo xamante ni ñu ngi tukkee ay mbokk yu yàgg a toog di waxtaan ci naka la ñuy def ba Touba Belel dox gii muy dox ci suñu loxo ndax ku ne xam ne ni dëkk boo ñëwee fekk fa mu am aw yoon fa ab hôpital fekk mu amul ndox fekk mu ay courant kon nga ni dëkk boobu ma ngay dox lenn nag moo lay tax a mooy nga ñëw fas yéene dugal sa loxo ci doxu dëkk boobu. loolu mooy li nga xamante ni mooy li ñu tax a jug bi ñuy tàmbali nag jot nañ digal ci kilifa yi nii nañu résumé tuuti ci li nga xamante ni moo fi jot a jaar ak ci suba ba léegi liggéey yi nga xamante ni ci lañ nekkoon doon ko liggéey ci biir kër gu mag yi. Touba Béthio jëf jëf li muy tàmbali li njëkk ci li muy tàmbali fekkoon na ci jumaa ji ñu toog amoon jafe-jafe ci wat boo xam ne da doon senn ñu fi lañ njëkk a liggéey liggéey ci loo xamante ne nii jàpp naa ne ñëpp xam nañ ko amoon nañ jafe-jafe loolu ci événement yi nga xamante ni mooy ñëw naka la ñuy jëlee courant bi ci jumaa ji di ko indi fi koy soxlaa loolu Touba Délai Jël liggéey na ci bi Touba Délai Jëf Jël jugee loolu tamit dugg na ci hôpital bi njëkk def mooy li nga xamante ni fi dañuy denc garab yi mu aajowoo sécurisation te loolu bokk ci li koy def moo ñu fexe ba garab yi température mu nekk ci température boo xamante ni mënees na cee denc ay garab loolu tamit ñu taxaw ci dugal seen loxo ba loolu saafara ginnaaw bi tamit li ñu njëkkoon a jàmbat ci dëkk bi. mooy ñu am mat saal boo xamante ne nii mboolem ku tawat kuñ fa yóbbu des na la fa mën a dugal di la saytu ca na mu gën a yéwénee loolu nag rawatina ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokk soxna yi ak buntooloo ci yenn état bi tubaab bi liggéey ci liggéey bu solo ba taxawal fa bâtiment boo xam ne def na ci 6 millions et quelque ba bâtiment ba loolu bokk na ci liggéey yi nga xamante ni tubaab bi nag jëf jëf liggéey na ko fi ginnaaw loolu jàllee tamit tubaab bi nag jëf jëf dina yëngu ci wàllum social amna lu ci do a doxal yo xamanteni yaakar na ni social mo baaxoowul di ko fésal ak na ni la ak fi lañ ko defé waye dox nañ ci ay jéego yu bari bari liggéey bi nga xamante ni nag moom la Touba def Jëf taxawal fi ñu toll ni muy liggéey yu mi ñu dëgmal ku ne xam na ni mbaar mi ñuy toog moo nekkoon mbaaru jullikaay bi nga xamanteni ni la ñu am waye nak jamono day dox ci la mbokk yi xalaate ba ni ñun kat war nañu mëna am mbaar mo xamanteni day mengo ak jamono moo tax ñu taxawal mbaar mi ci suñ ginnaaw nga xamante ni suñ ndaje fi mu li ci ëpp ci li ñuy waxtaane ci mbaar mi rek lay jëm ndem ko nag Touba Belel jëf loolu rek du ab liggéeyam ndax am na yeneen acte yoo xam ñu ngi koy posé ci asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Cheikh Abdou Lahad Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa kër di ziare balu àq te di leen di am mbégte kontaante saa su ne rek suñ leen déggee ak suñ leen gisee ci liggéey bi nga xam ñoo ko bokk muy liggéeyu Cheikh Abdou Lahad Mbacké bi nga xam ne amuñu lu ko gën a kawe kàddu yi tey nag daanaka man naa bañ a gudd kan ni ma ko waxee ni ko ki ñu roy ak ki ñu liggéeyal dañ koy tàmbalee ci moom yamana ci moom rek mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci jaarek fi nekkal muy Serigne Sidi di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram suñu borom gën koo kàttanal ba lim na ma liggéey ci yoonu murid suñu borom may kàttan bu mu ko liggéeyal di sant ak gërëm nag ki xam si ne day suñu sëriñ bokkaat ci liggéey bi ànd koo ñun ca saa su ne mi ngi ciy wax di ci jëf man ñi ci muy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñu ngi koy sant bu baax ndax ñun ñi nga xam si ne suñu borom def nañ nekk secrétaire général xam nañ bu baax fi mu féete Touba bi la jëf jël chaque jour ndax tey tamit di wan na ko yabal na fi ab taaw muy sëriñ Sidi Mbacke mi ñëw fi tey matle sëkk jotaay bi kon ñu ngi koy ziar bu baax di ko sant bu baax di santaat liggéey bi xam mooy Touba Belgique nga xam ne kawe nañu yor trop wax dëgg yàlla ndax suñu sag la ñun ñëpp liggéey bi nag li may wax rek liggéey la boo xam si ne ndax li ñu sëñ Cheikh say waxoon rek liggéey moom bu ñu ko liggéeyee dana dem bel dana defaru suñ ko liggéey bel defaru kon nañu sagal suñu bokk bokk ci ñi koy liggéey loolu rek a fi nekk ndax liggéey la boo xam si ni moom sëñ bee koy doxal ko kon ñun dañuy sant en tant que secrétaire général ndax dañoo taamu ne chaque année le mandat bu secrétaire général di jeex su jeexee mbolam dañu dajé wat yenn ci seen baat gii nii xool ba xam li wessu ba xam yello na ñu changer ko wala ñu jëlat keneen kon suñu borom bu ñu suturalé ñu tànnaan ñu nekkat ci dañu wax alhamdullilah donte doonuñu fi dara ndax lepp ñu no mbolam ñoko and kon tan gi ñu tan di def comme secrétaire général dañu koy sagal rek kon ñu sant yalla bu baax di talal loxo comme ni ma ko defee daaw ci sàkkuwaat ñaan ci ñepp rek yaakaar di ngeen am ci ñun ak kóolute gi am ci ñun ba tax ngeen tegaat ñu ci bokku liggéey doon ñu ci dara ma ngi wo képp ko xam liggéey ci blaat bi ñor na la ci ñett yi ma woote woon daaw ci laay waat rek mooy ci doole ci xam-xam ak ci xel ñun nag ni ñu fas yéene doxee mooy li sëñ Abdou Lahad tënki woon rek dana mbooloo mu nekk dañoo war di diisoo tënk muy aw say ba fuñ ko wéeru buntu fee ñun incha allah ci loolu la ñuy doxee li ma ko waxee woon lépp loo xam jëf-jël mi ngi koy def muy lu avancé wala lu sooxe yow mi nga xam si ca nga bokk te gis na ko jàppal na loolu su jàllee ña ko sooxee ca nga bokk ndax taalal na loxo ci ñëpp képp koo xam da ngaa bokk ñi nga war a defar wala gis lu faay ñun chaque fois boo ñu woowee incha allah rabbi pare nañ ko ànd ak yow ci loolu noonu di sant nag mbooleem yëpp daanaka bureau yu bari lañ daanaka comme yoo xam ne du jar ñu koy lim di santaat ki la yàlla def ci muy président bu ñu ngi koy sant bu baax ci liggéey bu am solo bi mu def rawatina gi gën solo yitteel nag section yëpp ak yi ñu sant bu baax ci seen liggéey di waxaat Bel Jëf Jël rek comme niñ ko tënkoon ba léegi rek wax dëgg yàlla ci la ci ñi woo ci woo ñëpp di woo ñëpp tamit ñu jéem a nekk membre dagg ci carte membre di cotiser chaque fin du mois kon nañ ko tënki woon li ma la waxoon rek la ci laa nekk incha allah rabbi bépp dërëm bu jaar ci Tuubaa bee la jëf jël ñun suñu warteef la ñu saytu ko xam nu mu fi duggee ak xam fu mu fi dugg ci loolu ci la nekkaat jii nii liggéey bi nag wax dëgg yàlla tey suñu xel laa gën a dalaat bi ñu xoolee suñuy bàyyi ñëpp ñëw dagg kon loolu wax dëgg yàlla suñ xel bu gën a tourné tamit suñ xel daal na bu baax a baax donte ki ñu liggéeyal sax xam nañ ko bu baax a baax mais day wane ne boo nekk say bàyyi loolu da lay gën a dalal xel suñu bàyyi ñu ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay bi di tàllal loxo bu baax nag ndaw yi nga xam ne mel ne man comme ni ko sëñ waxee sànq wax dëgg yàlla yëf suñu yëf la suñu bàyyi dañuy gunge rek waaye ñun ñëw ko war a teew suñu bopp te dañuy wan a yoon kon ñun waa belal wax dëgg yàlla dama ko wax fere wax sa jour lépp ñun la war képp ku ñu defal damaa yaakaar da ngaa ñëw pour jàppale ñu de waaye lépp yi belal waa Touba belal jëf jël waa belal kenn jiitu leen ci kon maa ngi taalal loxo ñëpp di leen woon a liggéey wax dëgg yàlla bu baax di santaan mbooleem ñi fi teew ñëpp di sant di santaat bu baax nag ak di fàttali koo xam si ne wax dëgg yàlla fàtt duñ ko fàtt du du du yomb ci ñun ñu fàtte ko ndax bi ñuy door ca poste santé bee la woon di nga xool boo ñoo ko àndoon muy sëriñ Sidi mu Serigne Cheikhouna di ku nekkoon jàmbaar lool ci liggéey bi di ki ñu dalaloon suñu xel épaulé ñu kon ñu ngi ñaan képp ku fi nekk ak ku dégg suñu kàddu nga ñaanal ko bu baax suñu borom dool yërmaande ci kawam jéggal ko te fa mu nekk gënal ko fu fi mu jógee wax dëgg yàlla jàmbaar la woon ci liggéey bi taxawoon nañu fu ne te bokk toll nii kon ndaje mel nii bu ñu dajee ñun ñi nga xam si laan seq liggéey bi ñu naan jokkoo woon bu baax baax kon ñu ngi sàkk képp ku teew fii nga ñaanal bu baax ci ndax soo noonu ci liggéey bu wax dëgg yàlla te li ma rafet di wax rek nee na beral moo ko ñor te ñun gis ci loolu moom ndaje yëpp da ci daan teew gàmm gi mu defa moom vidéo li message bu mujj lance doy na sëkk ci tubaab bi la jëf jël ba léegi man chaque jour dama koy dégluwaat na xam ne ne mun ñoo am wax kàddu yu gën a faaw loolu kon ñu bu baax a baax loo xam ne day jëmale Touba Belel ca kanam ak jëmale waa kanam loolu nag ñu ngi ciy soññ ñu mbokk yëpp bi ñu xëyee tamit ci loolu ci lañ yenn ci suba ba léegi doon réunion bureau ak doon xoolaat commission yi naka lañ koy tëralawaat mbooloo mi nga xamante ni ñoo ko saytu woon tamit ñëpp maase nañ ni ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di wéyal dañ leen di bàyyi ñuy wéyal loolu kon ñu ngi sant ñëpp di xam ne ñi fi doon doxal ñuy continuer di doxal waaye nag ci kóoluteef ak yaakaar ju rafet ju mbooloo mi am ñoom moo tax ñu jox leen ko. ñu ngi leen di xamante tamit ci suba léegi ñu ngi doon def ay réunion ak ay jaayante yoo xamante ni kuréel gi tàmbale na ko ci biir kër sëñ bi bi ñu xëyee tey jii ba fii ñu toog di wax a yow bi ñu nekkee ci biir kër gi ba bi ñuy génn dajale nañ fi lu toll ci quatre cent onze mille quatre cent onze mille francs yoo xamante ni dajale nañ ko fi ci suba ci ay jaayante ñu ngi leeral mbokk yëpp tamit ni jaayante yooyu day continuer ba keroo mbaar mii di àgg yemale wuñ ko fi ku ko man ak noo ko mane ak foo ko mane rek bu soobee yàlla boo jokkoog ñun dañ la wax fi ngay jaar bu mu dugg waaye ñu leeral leen ni bi ñu xëyee ba léegi dajale nañ ci ay jaayante ci lu toll quatre cent onze mille francs ñi ko xamul loolu mooy juróom-ñetti fukki junni ak ñaari yu tegal ñaari téeméer dajale nañ ko ci biir kër sëñ bi laataa génn ci réunion bi loolu lépp soññee biñ ci taxawal mooy fas yéene mbaar mi fii mu toll ñu romb ko ci ni mu gën a gaawe ku ci ne xam na ni ñu ngi ci deuxième phase bi te deuxième phase bi yëggagul mooy fexe ba bâtiment bi rancé ba mu des coulé ñu bëgg nag bu ñu fi jógee tey jii li jëm ci wàllum deuxième phase bi moom ñu jeexal ko tegee ko lële nga xam ni li ñuy taxawaat mooy fas yéene engagé troisième phase bi te mooy coulé ak li nga xamante ni mooy li ci topp kon ñi ngi soññi mbokk yëpp leen xamal ni Touba Belel jëf-jëf du kenn yëfi waa Touba Belel yëpp la lu ñu fiy def defuñu ko fi pour kenn pour waa Touba Belel yëpp lañ koy defal ndax kuñ ko fi doon def ngir kenn des na ko tànn ci koñ wala ñu tànn ko ci ay kër ginnaaw na dañ koo indi ba ci penc bi ñu def ko bi penc moom ku ci ne xam ne lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk dong lañ fay def kon ñun ñëpp nañ maase góorgóorlu dëggal suñu bopp ci liggéey bi parce que yéene songu te daan ko te buñ ko jéemee dinañ ko man insha allahu taala kon ñi ngi yemale foofu suñuy kàddu ci liñ bëggoon leeral su fekkee leer na ñu sant yàlla bu baax xam ne li ñu santoon def nañ ko bu leerul tamit ñi ngi dogal ngànt te xam ne jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak la muy dogal ñi ngi jégalu wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu nuyoo gën a tedd di nuyoo lislaam ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bu ñu leen siyaaree kenn ku nekk ci turam ak ci santam euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général de kulli murit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ndaka noonu koy ñaanale sëriñ Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat suñu sëriñ ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal sëriñ Moustapha sëriñ Cheikhouna Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak njabootu sëriñ Abdou Lahad gi yëpp bàyyiwuñ kenn siyaare mbokki taalibe yi fi nekk yëpp sunu waajur yi fi teew ak sunu yaay sunu rakk yi ak sunu jarbaat ak sunu mag yi bàyyiwuñ kenn ñu ngi siyaare ñëpp di soññee bu baax ci liggéey sëriñ tubaa Cheikh Abdoulaye Lahad bi nga xam ni moom lañu ñu taxawal fii ci Touba Belel te benn daayira taxawal ko bu ñu naan Touba Belel jëf jël ginnaaw bu ñu amee yëg-yëg ci sëriñ bi muy Cheikh Abdoulaye Lahad sunu sang ba ak jëf yu mu jëf si ñun te mënuñu koo fay ñu ni lenn rek lañu mën a def jàpp nañ ni suñ ko defee danañ dox jëm ci moom muy àndandoo liggéeyal ko fii ci dëkkam bii di Touba Belel bu ñu waxee loolu nag sëriñ bi kenn ku ne xam na wàccuwaay bi mu joxoon dëkk bii kenn ku ne xam na ni mu fi doon liggéeyal yàlla waaye di fi liggéeyal sëriñ Touba. ba li mu liggéeyal sëriñ sëriñ Touba day ñu koy naw ci àdduna bi. li ci doon jiitu fii la ko doon sàkkoo ak ay taalibeem di ko def ci liggéeyu sëriñ Touba bi waaye di woo mbokki taalibe yëpp su ko jëfee ba pare kenn ku ne fekk ko ca ak na nga mane muy ay jaayante yoo xam ni murid yi dañ ko doon def mu doon ci liggéey diiru li mu toog ci xilaaf ak Serigne Touba bi kon tey suñ demee ba jamono ji ay ndaw ko di Touba Belel jëf jël ngir jéem xool. nu ñu doxalee dëkk bi pour mu jëm ci kanam ci wàllu taar ak ci wàllu développement ci côté yépp nag kon loolu ak sant yàlla la kon ñu ngi ciy soññi suñu bopp di ci soññi mbokki taalibe yi ñu bokkal dëkk bi yépp ci réew mi ak ci bitim réew ndax kenn ku ne xam na ni Touba Belel Jëf Jël ah, kuréel gu yaatu la tey mu ngi Amérique mu ngi Italie mu ngi Espagne mu ngi France mu ngi Angleterre mu ngi Brésil mu ngi Cameroun mu ngi Maroc mu ngi Guinée Bissau Guinée Conakry kon mu mel ni euh, Touba Belel jëf jël ay bàngaasam yaatu na trop fenn fu ci nekk ay jëf di fa jóge di ñëw fii ci liggéey bi am na ci jëf yoo xam ni ci sama loxo bii lay jaar bu dee ci wàllu Amérique bi

ci ñooñu lañ koy jaarale muy ñëw ci mbooloo mi loolu yëpp ab yaatal la kon mu mel ni ñun ñoo war a ñun ñi gën a jige ñun ñi jàpp ni ñoo gën a jige ñun ñoo war a gën a góorgóorluwaat te gën a takku ndax tey boo xoolee ñi sori seen xel mu ngi ci dëkk bi waaye seen bëgg-bëgg ak seen jëf mu ngi ñëw ci dëkk bi kon nag loolu dafay mel ni ab soññee la ci ñun ñi nga xam li commencé ci man ñu xam ne dañoo jàpp ni ñoo gën a jige dañoo jàpp ni xaj na am na lu ñuy doxal ci liggéey bi kon loolu ab soññe la ci ñun mu mel ni comme ni ko sëñ Modou waxee rek jaratul ñu ci dellu Touba Belel Jëf Jël commencé na am na ay liggéey yu mu def yu baree bari ba egsi si mbaar mi mu mel ni bi ñu xëyee tey am na ay jaayante yu ñu ubbi ci biir kër sëriñ bi comme ni ko sëñ Modou leerale jaayante nañ fa ba mu toll ci euh, quatre cent euh, mu mel ni nag mbaar mi fi mu toll nii.

ndax kenn ku ne xam na ne àdduna amul solo te kenn xamul kañ nga fiy jógee yal na yeex ñu ñëpp gudd fan lañu bëgg waaye ala kulli alim ah, dem moom sax fi moom mënul nekk li fi bàyyiwul sunuy maam bàyyi fi sunuy yaay ak sunuy bàyyi du ñu fi bàyyi kon nag ñu sax si liggéeyal sëriñ bi te am ci pas-pas ndax moo ñuy jariñ tey moo ñuy jariñ ëllëg li ñuy dolli foofu mooy képp koo xam ni am nga loo mën a jaayante ngir jëmmi sëriñ Abdou Lahad ci jaayante boobu ñu commencé ba dugal ci quatre cent mille francs nga fekk fii waa taabal ji nga def sa jaayante képp koo xam ne tamit xaj na mënagoo ko wala jékkoo goo ko sëñ Bara Touré mu ngi fi moo jiite section Touba Belel lépp lu ko waaye jox ci ay jaayante tamit dana ko dana ko indi ci kuréel gi ñu xam ni jaayante yi day continuer ba ba mbaar mi di àgg ndax kenn ku ne xam na ne aw sas moom buñ ko toggee ni ah Abdoulahat Diop mi kat lii war a def ci liggéey bi euh, baaba lii la ci war a def sëñ Cheikh Fall Bella li la ci war a def dëgg la loolu maanaam pas-pas la bu ñuy boole ngir man cee dox waaye dëgg dëgg liggéey bi waaye dëgg dëgg yoonu sëriñ bi jaayante moo koy matal ndax yoonu murid yàgg na ci loolu li ko sottal lépp jaayante moo ko sottal ndax da ngay gis ñu tobbiw sas nit ñëw des fas sas wa ñu woote jaayante nit ñëw def ci lu mat lu ëpp fukki sas kon mu mel ni jaayante mooy yóbbu liggéey bi ci kanam moo koy doxal ba mu àgg fi ñu bëgg mu àgg fa kon jaayante yi soo nañ ko lépp nag dara génn ci Touba lépp lu yokk Touba lu ko taaral ah loo xam ni tey bu ñu demoon ba àdduna war fee daje tamit du ñu jaaxle ci dara loolu rek moo ñu tax a jóg ñu xam ni suñuy yëngu ak suñuy dal yépp fu ñu ci mën di dégg rek lu yokk Touba ak lu koy dëgëral ak lu koy dooleel loolu rek moo ñu tax a jóg ñu xam ni sëriñ bi moom li ko waroon lépp def na ko ndax sancub dëkk la fa war a am lépp am fa muy godron muy ndox muy hôpital yaakaar naa ni loolu doyul nga sëkk kon nag li ci des li saytu loolu nag ak di ko taaral ñun ñii fi nekk ñun ñoo ko war a def kon nañ ci futteeku bu baax a baax bay ci sunu waar lépp luñ ci war a defit ñu def ko ci ngir jëmmi Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Lahad ñu ngi sant kilifa yi nga xam ni ñoom la ñu toftal ci liggéey bi ñu nekk ci kanam di ko doxal te wax dëgg yàlla ñuy sonn trop liggéey bi kenn ku ne xam ne liggéey bu yaatu la te dañ koy booleeg seeni liggéey bopp ak seen yittey bopp léeg-léeg ñu bàyyi seeni yitte ak seeni liggéey nekk ci liggéey Touba Belel jëf jël loolu tamit bu ñu tasee fii war nañ leen sant xam ne tey jii mooy assemblée générale Touba Belel jëf jël tey la ñu waroon a xool bu fekkonte ne ñi ko jiite doyuñu ñu wala ni ñuy doxee neexuñu ñu tey jii lañu leen waroon a sensé am ñeneen ñu ñu teg waaye daf fekk ni liggéey bi dañ ko commencé ba léegi ñoom doxin biñ ciy dox. ñun ñi ñëpp kenn ku nekk si ñun xam na ni ki ñu jiital lim ciy def man mënuma ko daam mi mënu ko seen Fall Belal mi mënu ko Cheikh Abdou Fall mënu ko keneen mënu ko kon nag nit boo ko jiitalee muy dox te mu wóor na li muy def mënoo ko li la war mooy nga topp si ginnaawam dooleel ko jàppale ko kon loolu mooy suñu digganteeg suñu kilifa yi nga xam moom lañ jiital ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ fi teewaat déwén nawet bi ñuy jublu yàlla nekk nawet bu sedd buy nawet bu barkeel nawet bu ñu tal boo xam ni dana yaatu dana law dana naat dana taw ba adduna bi yëpp jot si yàlla mën na ko yàlla na ko def si doole Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Lahad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaye jërëjëf ñu ko seqal yëpp ndax li nga fi jot li waatoon mënu fi woon a ñàkk ndax ñooñu nga fi tudd ñu def seen ñàkk ci liggéey bi la te am na ci ay kilifa yu ko jaarale woon kon bu fi yegsee dina yàlla mu jaaraat ci ñoom dem ci ñoom ndax fii dara du fi ruube tey kon def lu baax ba ñëpp yëg ko war ngaa wax ba ñëpp dégg ko rawat na liggéey sëñ bi laata ki ñu doon defar ci loolu la nekkoon kon suñu Abdou Lahad Diop jëwriñ jërëjëf mais Abdou Lahad ko moom ngay wax mu wax na la ci làmmeñam ni ma Touba Belel xanaa lu ma yëgul waaye lépp lu ma yëg tam soññi ma ca fas naa ci yéenee def sama lu ma mën ak lu ma mënul bu xamal na ma boppam tamit nag fi ma toll ci jamono ku ñuy fàttali laa waaye li may def ñàkk koo def du ak yow si moom lépp lu ñu fàttali fas naa ci yéen moo waral loolu ni ko am ndax waxee jërëjëf euh, kon xam naa dañuy ñëwaat ci sunu section bi rek mu mel ni ñoo ngi santaat sunu mbokk yi ko seq ñëpp nag ndax am na lu ñu fi dabaat lu ñëwaat ci xéwal loo xam ni toll na ci juróom-ñeenti junni ak euh, juróom fukki dërëm 45 mille 250 Cheikh Abdou 45 mille 250 Serigne Baba Gueye Sintu 45 cent 250 dolli ko war na ci section yi nga xam te nii sous section yi buñ ko boolee li ñu joxe woon léegi 390 mille day toll ci 435 cent 750 juróom-ñett fukki junni ak juróom-ñaari junni ak téeméer ak juróom fukki dërëm loolu nag dama bëggoon ci ñu taxawaat ci tuuti ndax dafay mel ni léegi bi may wax lu jëm ci li ñu versé woon daaw ci wàllu jaayante yooyu dafay mel ni dafa am ak wuute ci ren lan la ñu wuute mooy keroog dañoo woot ak jaayante ren nag dañoo woote liggéey boo xam ne day tàmbali waaye amu fu mu yem lan moo tax amu fu mu yem mooy lii ñu laaj bi section bi taxawee ak tey wenn weer lañ ko defagul na kenn ku ne xam tamit nag dañ koo tàmbali waaye te fu ñëw yéene mu dellu ñiy laaj ci góor ñi ak ñiy laaj ci jigéen ñi ak ñi ñuy laaj nañ bàyyi xel loolu sàcc le premier tey le premier démb la lañ jotoon a laaj ci weer wii weesu moom lañu weesu nii weer wi jëm la cinq fas nañ yéeneen nag nag balañ ca yegg ñu amaat lu ëpp lii ñu joxe loolu nag ñu ngi ciy gën a santaat suñu mbokk jigéen ñi ak fu ñu mën a nekk ndax bi ñu saytoo liggéey bi kat gis nañ seen njàmbaar mu dox ci bu baax a baax a baax a baax ba yaakaar naa lépp luñ musa woote ci Touba Belal jigéen ñi daa mel ni kenn jiitu leen ca kenn gën leen caa jëm kanam kon grâce à ñoom waaye nag euh, liggéeyal Sëñ Abdou Lahad moom doonu loo xam ni buñ la nee waa rek nga daan tàmbale yaafus day mel ni boo xësee tàmbale rek wóolatoo dellu ginnaaw kon ñi doon laaj ak ñi doon laaj bu ñu tay bu ñu yokk te xam ni kat lii ñuy def. defaluñ ko kenn defaluñ ko ma sàmm defaluñ ma ko dem ba waa belal ak li ci aju lañ koy defal ñii kilifa yii ko seq nekk nekk Touba seeni jaayante yi ñuy joxe ëpp na doole fuuf li ñuy laaj kon loolu ab soññee la ci ñun ñi ko seq ndax saytu nañ ba xam ni ñoom saa yu ñëwee li ñuy lu buñ sañoon lépp luñ fi def luñ luñ programme bisu keroog tey foofu foofu la yem loolu loolu jeex ñu dugg ci leneen ba tax soo ñëwee ñoom ab jaayante lañ njëkk lañ njëkk a woote jaayante boobu mel na ni ni ko sëñ Modou waxee kon ñun ñii ko seq ci section bi lii ñuy joxe war nañ cee gën a góorgóorluwaat war nañ cee gën a ñaaxaat suñu bopp war cee amaat ful la war a fas yéeneen tamit nag woote waatu jaayante fii nga xam te maanaam ñun tamit tam tàmbaliwaat ko ñu xam ni nag liggéey sëñam nag am na fu mu tàmbala waaye am na fu te lu ci waaye def sa bopp nga ko defal nañu góorgóorluwaat blad dina jox ci ñaan yoy nga ñaan ci walu Touba belal ak mbay mi ndax suñu lepp ngi ci mbay mi suñu lepp maa ci mbay mi kon bo ñaan le nawet bu na bu nang bu xewal am na yaakaar ci ni lépp lu ñuy laaj lu jëm ci Touba la jëm-jëm insha allahu rabbi nga ko def ñoo ngi ñaan suñu borom bu depp ñu katal defal ñu wër defal ñu fekk defal ñu tal defal ubbil ñu bunti wërsëg yu yaatu nag ta bay ta barkel ci barkel allahuma inni a'uuzu bika min al kufri wal faqri wa a'uuzu bika min azabi qabri la ilaha illa anta ubbil ñuy bunti waftaxlanaa kulla baabin kunta faatihahu li saalihiina min alxayrati yàllaahu yokk suñu fan ci barke bi tawil lanaa xumranaa saxi lanaa badana wa hab lanaa rusuwa tawfiiqa yàllaahu lépp lu ñuy dugg te di yëngu yàlla yomb ci barke bi yasir lahum bihi lasi taxasara fa kullu ma istatoo tayasara yàlla suñu ci baa dimbali taxawu ñu yërëm ñu yéer ñu dafa ñu ndimbal yërmale dafa ñu sutura ak tiraanga dafa ñu xéewal sax dakk yaatu bari ànd ak barke yàlla yàlla defal wérul yaram gudd fan njël barke àjjanaam wasalaamaaleykum wa rahmatullah di len bal ak te di len balu ak di ñaanal sunu suno serigne muntaka mbake sunu borom guddal fanam lol wéral ko di ñaanal Cheikh Sidi mbake mi fi tok jotaay Cheikh abdul Ahad mbake sunu borom guddal fanam wéral ko di ñaanal ñi nga xam ni no bokku liggey bi te jawrin ji di sering abdul Ahad job and ko ak Baba Guèye mi comme lolou mu wax ñun de dañ leen di dollee jàppale rek ak di leen soññi waaye liggéey bi yéen a ko moom ndax mag moom mën naa amum xelam waaye doole gone moo ko yor kon ñoo ngi leen di ñaanal ci jëmmi Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi tax ñuy def lii da xam ne nii maanaam lépp sëriñ Abdou Lahad la kenn ku ne na ci xool sëñ Abdou Lahad bu ci xool kenn ndax boo ci xoolee kenn doo dem saa su ne da nga ciy xool sëñ Abdou Lahad boo ci xoolee sa Abdou Lahad lépp day woyof te day yomb nuy ñaan li nga xam ne mooy liñ ci yéene Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké defal ñu ci lu kawe sunu njort di leen ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal sunu bopp di ñaan sunu borom bi defal ñu wërsëgu poos woo xam ne luñ yéene ci yoonu Serigne Touba dinañ ko mën a am ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm it jigéen ñi nag ndax wax dëgg yàlla kenn demul ñu des ndax saa soo jógee gis leen seen gannaaw. te soo sumee say daal la ñu for ko kon day mel ne jigéen ñi itam mat nañoo sant gërëm leen di leen soññ di leen xam ne dañuy mel ne koo xam ne ni defagoo dara lii ñu def xaj na am na solo waaye nan mel ne ku deful dara soo dee liggéey ci liggéey sëriñ Touba loo weestu bu ko gestu loolu la maam Cheikh Rafal rawe woon maam Cheikh Rafal daa rawe woon nit ñi ci lu mu weesu du ko geestu mel ne defagul dara loola it buñ ko defee liñ bëgg daan ko am te duñ sonn asalaamaaleykum wa rahmatullah waawoon Lamine Touré leeral am na solo loolu nag man nag dama am sama kàddu yu bopp yoo xam ne dama ko bëgg a jàllale mën na ñoo continuer si mbokki jigéen nga xam ne sëñ soxna Awa Fall moom moo war a wax ci mbokki jigéen yi man nag li ma war a wax mooy daa am na ma bëgg a leeral tuuti rek ñi nga xam ne ñoo fi daje yaakaar naa am na liggéey buñ doon liggéey ci Touba Belel mi suñu jëmi bopp ko fàttalikoo ci ginnaaw am na luñ fi taxawaloon ñu koy woowee Touba Belel ca kanam Touba Belel ca kanam googa tamit yaakaar naa mbokk yu bëri demoon nañ ci ñoom leeral leen ko wax leen ko ba ñu àndoon ci ñun ñu commencé ci war liggéey loolu tamit gone yu bëri ci dëkk mën naa ñu ci ëpp bokkoon nañ ci liggéey boobu ba commencé ñee def liggéey bu am solo ci loolu nag ci la waxtaan ak waa association ànd liggéeyal Touba Belel ñu waxtaan ci ba déggoo ci ay kaddu ànd ak ñoom di liggéey ba ñu defee loolu tamit ca ginnaaw wala Touba beneen jëf-jëf gii ñëw moom it ñu ànd ak moom jël association ànd liggéey Touba beneen boole ko ci biir liggéey bi nga xam ni kon mën nañ ni Touba beneen ca kanam nga xam ni moom mujjoon nañ ko sax soppal ñu dundee ko li l'union pour le développement de Touba loolu nag bu ñu boolee lépp tey moo taxaw nii nekk Touba beneen jëf-jëf kon képp koo xam ne dafa amoon yéene liggéeyal tubaab belal ca kanam war ngaa mën a am yéene liggéeyal tubaab belal jëf jël ku amoon liggéeyal yeneen association ànd liggéeyal tubaab war ngaa mën a am yéene liggéeyal tubaab belal jëf jël lépp benn la benn googu mu nekk nag moo tax ñu war a xam ne dëkk bi kon ñu ngi ci liñ doon wax ni union pour le développement de Touba Belel kon loolu ñu ngi ci ndax li tax ñu nekk ci mooy ginnaaw bu ñu mën a déggoo ci ñetti kuréel yoo xam ne bokkuñ ñu mën a ànd di waxtaan di diisoo lu ne mën caa juddoo ñu dem ba boole lépp mu nekk benn tey lépp taxaw nga xam ni amatuñ benn xalaat amatuñ benn passeport bu bokkut ak Touba Belel jëm jël fas yéene liggéey ci ci Touba Belel kon loolu war nañ xam ni développement ba ñu bëggoon ci Belel mi ngi am loolu nag damay soññi sama mbokk yi gone yi ñu gën cee góorgóorlu bu baax xam ne lii yàgg yàgg ci ñoom la jëm si yàgg yàgg ci ñoom la jëm si kenn ku si nekk war nga am benn pas-pas ak ngëm-ngëm boo xam ne moom war a àndee ci liggéey bi ba xam ne tey lu la ci dab du la bett ñu gën koo fonk bu baax ndax benn bis bi ñuy taxaw fii di fekkee waxtaan ci wàññiwu dara kenn bu si nekk bu ñu la woowee réunion war ngaa mën a def sa kem kàttan pour dagg sa yitte ñëw toog fii mën a fekkee li ñuy wax ndéem mënoo caa am xalaat joxe ko ci tamit nga mën koo dégg ba bu ëllëgee lu la jëpp dab nga mën koo jëfe maa ngi soññi suñu mbokk rey yëpp ñu gën cee am pas-pas bu baax a baax a baax waaw loolu laa doon jàllale maa ngi déglu bu baax a baax ngi leen di nuyu yéen di balo ak di bal ak ñepp di ñaan suñ borom defal ñu tawfiq ñu fekke dewet ñun ñepp ba kenn ku si ne yéene ji nga am ak mbébét yi nga am suñ borom kàttanal la darajal la ba nga man ko àggale ci barki ci ablat ñi santu ñepp nak di ñaanal sidim ci ablat tej ak señ sidim señ cheikhou na mi fi bàyyeekoon da ngeen ni da mu newon fi suñ borom yok ay leral tax ñu ci barkem tek loxo ci njabotam gi ba lépp loo xamante ne ay mool la woon yu mooloon ak njabootam mën koo àggale ci yoon wi maa ngi sàkku nag képp ku fi nekk it nga ñaanal ko ndax negi ni daaw moo woon kon nag yal yàlla yokki leeram may soññ sama bopp nag bu baax a baax di soññ sama mbokki jigéen yi ngaa xam naa ni wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen lool macha allah di soññ suñu kilifa yi toog muy suñu góor ñu baax ñi ak yéen ñi nga xamante ni yéen a jël mbébét yi sas ko bëggal ñu yoon bëggal ñu lu baax ndax bëggal ñu lu baax weesuwul ngeen sos leen lu baax li indi ko fii si Touba Belel bëgg a dëkk bi kon yéen ñi nga xamante ni yéenay jeunesse dëkk bi man Awa Fall sama kàddu yu suufee yi maa leen ni sonn yéen ñëpp ngeen mobiliser ba kenn ku si ne ëllëg boo rombee ci pénc mii boo geesoo ndamu xam ni lii kat sa dërëm dem na ci wala say ñaar dërëm muy góor jigéen mat ak ndaw. ni kenn ku si ne suñu borom wërsëgale na xëy na bu dee ñaar dërëm bul ko xeeb bu dee juróom bul ko xeeb waaye bu dee junni baa muy ñaari junni nit bu ko naw ndax doole daa yëngu ñuy sant nag soxna yow mi nga xamante ni yaa ma jox kàddu yi sant nañ la it si li nga xamante ni yaa ngi koy commencé muy laaj bi ñuy laaj ñun jigéen ñi ku ci mel ni man maa bi nga xamante ni ñoom laa toogal ñëpp ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax yàgg nañ cee bëgg a def am na ñoo xamante ni bunt bu ñuy jaar ba mënoon caa def moom lañ amul woon. kon nag sant nañ leen si sos bi ngeen sos lii di la sant yow it Lamine Touré Baara yow mi nga xamante ne yow yaa biire jiite section Touba Belal kon nag ñun ñëpp nañu mobiliser wu xam ni yëf yi suñu yëf la du yëfu kenn ñun ñëpp ñoo ko bokk ëllëg bu jekkee kenn duñu la bul dugg bis dina ñëw nga yittewoo ko yitte yoo xamante ne boo ca duggee ba toog ca ci boobaa ngay xam sa bopp yéen ñi nga xamante ne yéen waa Touba jëf jël seen i pas macha allah. ba ngeen commencé ba leen di defaloo leen yàlla kenn intérêt pour tout le monde rek ngeen fi def intérêt boo xamante ni ñëpp ñoo ko bokk parce que ku dem sa hôpital ba pël baag séeréer baag naar baag olof baag tukulóor ba ñëpp a fay dugg di génn penc mii bis bu àggee amul pencum olof ma amul pencum naara pencum Cheikh Abdoulaye la képp ku soppay Cheikh Abdoulaye wala képp ku ko yittewoo boo ñëwee da ngay daal di dugg kon nag ngàcce ngaalaama yéen sagal ngeen ñu si gën ngeen ne yàlla na leen Cheikh Abdoulaye mi tax ngeen di def leeralal leen seen yoon ubul leen seeni buntu tawfiixal leen suturaal leen sagal leen musal leen si cat ak làmmiñ ak balaak ak lépp luy yàq lépp lu nga xamantani ni liirum noonu la yàlla na ko suñu borom dëppal boppam ni yaakaar naa ne ki ngeen di liggéeyal de buntu bu nga xamantani ni seytaane war na faa jaar bu dee li ngeen di def dëggu la te gëm nañ ñi dëggu la ndax boo ngeen ko defoon kon du tollantiku defoon na loxo xamante boo wéetee di nga ko xam muy man muy kaneen kenn ku si ne soo demee na nga niir sa bopp xoolaat sa bopp xam ne Cheikh Abdou Lahad am na lum la defal loo xamante ni xëy na du waajur du kenn moom moo ko def ci yow ba foo tund dañ lay daal di naw ndax waa kër Cheikh Abdou ko gis xam ko dañoo xër ci moom mu xër si ñun kon nañ góorgóorlu ba lépp lu ñuy def si dëkkam bii nay loo xamante ni ñun suñu bopp xol lañ koy defee ak jëf ju rafet te lépp lu ciy dugg yàlla na laab yàlla na set yàlla na sell ba moom man ci boppam su ko gisee mu xolam féex ba lépp loo xamante ne ñu ngi ko koy ñaan mu mën ñu koo defal soññu naa leen yéen jigéen ñi ngir yalla wallahi wa rasul chaque fin du mois ni ngeen koy laaje ni ngeen di continuer di laaje bu len tay yalla bu len tay ndax bu ngeen tayale ba ngeen tay kon kon gem gem bi ngeen am seen laaj dess na bu ken tay bu ken tayal nepp lu nga xamanteni ngeen ko dess chaque fin du mois wallahi na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax ndax ñi am yene def mana def Assalamualaikum wa taala wa barakatu jërë ngeen jëf. jëwriñ waaw fii de fi la toll rek ci liggéey bi. waaw doon ko saytu. Mhm. waaw di sant rek borom dalal bu baax waaye di sant mbokk taalibe yëpp nag rawatina Touba Belel jëf jël ndaw yi nga xam ne dañoo takku àndandoo ngir liggéeyal sëñ Tuubaa si Ablaat ci dëkkam bi ànd koog nag àdduna bi yëpp waaw ndax woote moom li ci gën booy woo wool jullit yëpp rek ndax bu njariñ dikkee jullit yëpp jariñoo ko kon daal dañuy soññ suñu bopp rek. Mhm. waaye di soññi mbokk taalibe yëpp. mu mhm. gën a jàpp. Mhm. gën a góorgóorlu. liggéey bi ñoo ko fi bàyyi moo ñu fi bàyyi. waaw comme jot nañ ndigal daal. Touba beneen jëfteel beneen da koo soxal. moo tax mu jaayantey liggéey te am ndigal. Touba beneen jëfteel dafa rëy làkk ndam. moo yëpp mu faadam ya làkk ay ngërëm. Touba beneen nag jaayante day laaj it kenn ku nekk. def ci sa bépp man-man ak sa bépp yéene rek pour fi ñu bëgg mu àgg fa mu àgg fa muy ñu fexe raase bâtiment bi te waajal kuule mhm. foofu daal lañu ñu toll ci soññ suñu bopp nag ci soññ ñëpp di wax ni murit moom du wàcc te képp ku la liggéeyloo yoonu sëñ Tuubaa moo la yéene nga añ kon nag nañu góorgóorluwaat bu baax rek te fonkaat liggéey bi la xam ni moo ñu fi bàyyi ñoo fi bàyyi te sëriñ bi rek lañ am kon bu sëriñ bi bëggee rek dañu jël suñu bëgg tàbbal ko suñu biir bëgg sëriñ bi rek